li leen sëriñ ab bu junj ci sëriñ Fallilu moo nekk ndax def ma ni woon jamono ngi ñëw boo xam ni li leen yàlla jox jafandu leen ci jafandu leen ci kët sëriñ Abdu Lahat noo fa dem mu teeru ñu teral ñu defal ñu wallaahi ah Iba Beer nee ku la bëgg ngoog bàyyi bu la bëgg ngoog wax na dëgg والله رحمته صح من ما سيرين بي عبد الله حتى ما كو واخ ني ما سيرين من كون من ما خور لا واي خور لا ويالا نه من ما ككوم مو بوكو كو يالا جوخي دك mu ni fu boroom tund ne dana ko la fekk waaw mu ni ma ka ka kaxa ne bu ko ko yàlla joxee dëkk fu boroom tund ne dana ko fekk ci xurwa waaw loolu nañ ci jafandu ndax mooy njëriñ li leneen bu njëriñ damaa toog fii Aliadou Diagne Alaaji Aliadou Diagne entrepreneur ñëw ni ma dama nama Sëriñ Fallilu maa ngi dem te ñëw ma ni ko nuyul ma ko nemmikul ma ko mu dem ñëw ni ma nee na avion bii di ñëw bu mu la raw jëlal bii nga dem ba Medina nga wax ak yonent bi waaw <laughs> billahi wal kitaab moo ko wax alaji aliyaat bi jaay waaw bu ndakaaru ni ko kat na ko wóor ni bàyyam ak bàyyam yeeg maamam yeeg ñépp ca kooka la ñu jële kese ñépp jële ci moom nag dem fa ni ko jërëjëf ayul waaw ca suba sa ma dagg paas dugg ca avion ba ndong ndong ndong ndong ba waaw waaw ba ca kaaba ga ma def la may def way kaaba ga jóge fa ndong ndong ba ca Medina waaw ma ziyaare yonent bi toog ci kanamam gërëmal ko ñëpp waaw gërëmal ko mag ñëpp ñu ko gërëm mag ñëpp gërëm nañu la waaw ndax la fa ne yow waaw waaw waaw waaw waaw ma ni ko ndax la fa ne yow waaw taggu ko nag taggu ko taggu ko taggu ko taggu ko taggu ko wallaay waaw taggu ko ba fajar mu julli fa ba noppi génn génn tàndarma jënd café jënd ataaya dem ca bàmmeel ya toog fa rek ah, ngelawu firdaw si fekk ma ci diggante bàmmeel ya waaw laa naa ne kafe ga waaw lal sama sàjjaada fu li ngelaw jóge fa mu wóor ma ni kii ngelawu bër sax la waaw ah ba yoor yoon ma jóge fa moo fa jóge dem ci xurwa waaw bu ma demee ca kon wag gensu fii gensu fële gis affaire ba waaw Thank you. waaw waaw waaw ah. ma ni lii kat minkum benn baa nga nele benn baa nga nele waaw ah. ma ni lii kenn du ah. mooy alal ah loolu minkum ma ne ma nga mel ma nga mel tabarkalla hmm? ah loolu mooy li fi ne ñoom rek la ñu